wàllu contrôle routier bi nga xam ne bii jàpp nañ ne baaxul ci dañ koy defee. ndax agent bi daf doon gis ne góor xuma da am ñetti infraction bàyyi ñeenti infraction ñu ne ñeenti yëpp ngay fay baalu fu jóge bàyyi ñetti yëpp ngay fay baalu fu jóge ci biir waxtaan lu ko dalal wax ñu ne. infraction yooyu lu mu bari bari bari bari bi ci ëpp doole muy 6000 francs benn dong ngay fay yaa ci des doo ko fay lu mu bari bari bari comme 6000 moo ci ëpp 6000 dong ngay fay yaa ci des doo ko fay wax day leer te bépp infraction boo xam ne bi nit fay na ko ñu daxal ko russe dafay valable 24 heures ndax immobilisation bu amee oto ba du leen lañ ko tuumaal lañ soxla mu dindi ko moo war a ñu immobiliser ko mais immobilisation bu dañee oto bi dafa am droit circuler mais bu dee infraction boo xam ne bi jarul immobiliser dañ infraction boo mu fay dafay dem 24 heures li doon am bu njëkkoon mooy lan da ngay fay léegi infraction amaan dara solu si nga jóge ci point A léegi dem point B fekk benn agent mun a sama yónni ko ci moo ko liggéeyam maag liggéey Russie bi fa nga ko daggee fa la yem loolu amatul reçu day dem 24 heures léegi nag mu des nag bi ndax dañ koy immobiliser infraction bi ndax immobilisation la ndax oto bi dafa amul këyit bâche bi dafa amul këyit lépp loo xam ne lii dañ koy immobiliser kooku immobilisation la da nga cee jóge ca loola oto bi libre pour dem mais jóge woo ca loola oto bi day taxaw ñu wax ne aussi contrôle routier yi dafa bari lool te ñun bëgg nañu ku ñu defal trois postes de contrôle foofu tamit gouvernement fekk si nañu ne contrôle yi diggante corridor maanaam les corridors corridor yëpp trois postes de contrôle moo fa am mu des nag poste de sécurité poste la bokkul ak poste de ñu ne leen leen ràjjale poste de contrôle yi xam nañ ko ñun mooy oto bi agent bi am na bi policier la ou gendarme ñëw di laaj seen pièce ndax am ngay pièce oto bi oto bi am nay pièce kooku mooy contrôle potu sécurité nag kaaraange ñëpp la yore du ñun dong lay topp mën naa def contrôle te du ci boole chauffeur bi potu sécurité ñëpp la ñun d'accord nañ bu doon ñett la nañ ko def mille bu dee sécurité dong la nañ ko def te contrôle nekk ñett ñoo ci biir contrôle boobu dinañ instruire gouverneur yi préfet yi ba contrôle boobu ñu koy def en famille dañ koy groupé léegi police ci nekk gendarmerie da ci nekk douane ci nekk eaux et ci nekk ministère des transports asimanté da ci bokk ñu defandoo contrôle loolu tamit gouvernement nduxu na ko may nañu ko mu ñëw ci dàll yi ñu doon jàppe da ngay sol chaussure fermée ñu ne non waxuñu chaussure fermée chaussure de sécurité lañ wax ñoom nee am nañu droit yor chaussure fermée pas sécurité kenn dootul exiger kenn sécurité sécurité carax la ñuy bañ nu-pieds la ñuy bañ mais surtout fermé am nga droit dawal oto bu la neex kon problème mu sécurité sécurité dañ ko xool ci chantier ya oto ba nekk ci biir chantier ba bu fa agent bu duggee ci biir na ko laaj casque na ko laaj ko laaj chaussure de sécurité mais oto boo xam ne bi génn nga chantier yaa ngi daw corridor koro baa nga daw ci biir dëkk bi kooku dañ ne la siire say daal ba mu rafet costumal gani mais bu sol carax waxoon naa léegi toog day dellu si ak dellu si waat problème mu euh, euh, reçu bi am nekk 24 heures ñu wax ne képp kuy monté na am reçu te tarif bi du tarif bu bees bu ñu préparé di ko joxe tarif bu fi amoon la tarif bi fi amoon 6000 moo ëpp ci montant ñu ne nag loolu da leen ko affiché dinañ ko jox acteur routier yëpp kenn ku nekk am ko chauffeur si am ko ñëpp am ko ba kenn ku def infraction doo xaar alkaati waa gendarme naa la nangoon ngay fay yow yaay xamal sama ko ne lii ngay fay maanaam chauffeur dootul wax di lii laay fay mais gendarme ak alkaati wax lii ngay fay këyit gi koy wax léegi mu tarif bi ñu ñëw ci wàllu maire yi ñuy teg ay sabu chaque jour ñu koy jooy procès verbal bii ñu juboo nee nañ tali yu mag yi maanaam euh, Euh, route euh, route nationale yi waa AGEROUTE ñoo ko war a saytu bu dee sabal waa AGEROUTE ko ci war a def mais maire yi dootuñu leen bàyyi ñu jóge seeni maire yi ñëw ci route nationale yi di saboo oto yi kooku jeex na tàkk te maire yi wenn bu nekk war nga am parking ci sa commune pour que oto bu ñëw war caa mën a dugg bàyyi mbedd yi mais sabu ci national moom moom day jeex baa bokk sabu ajurut moo am droit uti ay sa boobu di teg mais pas maire léegi ñu ñëw ci wàllu affichage xam nga ñun liñ man mooy dañ ñëw ci site camion da nga gis mu yóbbu 40 tey bu subaa ñu la ko baax na bu subaa mu ñëwaat yowaat 40 tonnes ñu la ko baaxut moo waral ñu doon ŋàññ machine nag machine yi baaxut mais ci ŋàññi rek lañ mën a yem ndax am organe bi nga xam tey ji moom moo am droit contrôler la baax na baax bon na saa bu jóg di contrôler dañuy ànd ak moom moom bu ñëwee xam ne machine yi baax na daf koy joxe matérialiser ko teg ko benn vignette ne vignette bii fii ak 6 mois baax na ñun tamit ña fa nekk assisté ko tamit duñ mën a wax lul baax na avant nag mënuñu ko à gérer après tamit mënuñu ko à gérer mais mënuñoo wax leen lu dul baax na baax na mu des nag beneen contrôle boo xam ne bii dañu yor seen oto de dépiécé ay pièces maanaam mel ni basang boo lem di moom fu leen neex ñu tàllal ko fa te yoonu météorologie nekku ci xoolu ko gisu ko waxul na baax na yooyu la ministre wax ne arrêté na bañ gis lu war ne météorologie war ne oto bii di dem mu teg baax na mais pour l'instant suspendre nañ ko oto bi di taxawaalu arrêté na poste fixe yi moo fi nekk ñu ñëw ci àllkale ji muy 2000 francs yi nga xam ne tey jii moom dañoo yitteel lool te bàyyiwuñ ko dañ cee wax plusieurs réunions bu ñu mënti defoon nañ ko nañ ñu bàyyeeg suñu 2000 francs gouvernement bi nee na ñoom ministère de transport ministère de finances ak Afrique ñoom ñoo signé. ñoom ñett comme ñoom ñett ñoo signé ne leen topp ñun signé wuñu war ñoo topp mais ministre bi dafa ne comme problème mu xaalis la man dama sama ministère laa représenté am na beneen sama naataangoo bu représenté woo te beneen ministère am kon nañu bàyyi techniciens yi bu ministère des transports ministère des waxtaan ak agriposage waxtaan di dinañu am solution mais mënumaa jël kàddu seen kanam na dindi naa ko mënuma ko li ma mën a wax rek mooy mënu ma kaa dindi ba saa bu ñu essayé ci war kaa dindi foofu leral nañ ko ne ko bu mënul bu ma nee dañ ma ñugalal bu mënul dañ nag xam nga dañuy defam nañ fexe ba oto boo xam ne bi nekk en règle defoo dépassement de poids 2000 francs yooyu bu ko fayati ci proposition yi oto boo xam ne dafa dépa dépassement de poids na fay pénalité am ci pois fay pénalité am ci passage bu loolu mënatu nekk tamit oto yi nga xam ne moom dañuy def ay rotation gën ngaa néew ñaar par jour bu fayee benn yoon dutul fayati ba bis bi jeex tag loolu dugal nañ ku ci proposition yi yooyu nag bi nga boolee yëpp nee na am leen ci man confiance wax bi du tey wax bi talaata la talaata la ñuy wax loolu lépp lañ koy vidé lu ngeen di am talaata ngeen koy am lu ngeen di ñàkk talaata ngeen koy am la ngeen koy ñàkk mais am leen ci man confiance loolu la wax lu ñu am talaata lañ ko am ci question règlement 14 bi lu ñu ñàkk lu ñu am yëpp talaata la mais ñaan nañ jox ko confiance may nañ ko confiance à travers EG nekk intersyndical bi renouvelé waat na confiance bi ñu amoon ci moom yokk yokkaat nañ ko te xam ne mooy suñ ndey mooy suñu bàyyi talaata mooy suñu avocat mooy suñu lépp te gëm nañ ne talaata bu amee mënuñoo ñàkk lépp mais mënuñoo am lépp mais dañu am dara ñun xam nañ ko bu ñetti gor àndee ku nekk yor si kuréel ñu jël baat jox ma na ma waxal ñu bala maa gërëm ma sàmba ma gërëm ma demba ñii lay gërëm Pape Mamadou Ndiaye jàll ñëw ndax nañ ko commencé ba léegi moom mu ngi saajiwul ci dara kon maa leen amal ngërëm wax nag loo xam ne lii li ngay wax keneen ma la ko daxa wax ñu bàyyi la ko ngërëm rek moo fa war kon intersyndical bi par moo voix en tant que porte-parole nag laa wax levé nañu moo dord bi ginnaaw bi ñu amee lii la ñu manqué que si ñëw talaata lañ koy réglé talaata lañ koy réglé kon renvoyé nañu mbir mi ba ta ba mardi mais li ñu am yëpp ci projet verbal bi moom moo ñu poussé tey jii ñu levé moo dord bi tegaat nañ ci dara je l'avais oublié de le dire en français mooy oto yi dañoo taxaw pendant benn une semaine il faut que mu ñu wax ndax man du ma sosal ministre ministre moo wax ma dégg oto yi mënuñoo départ ñu attaqué leen oto yi ñun ñu yoratuñu xaalis bu ñuy fekk ak yëngatu yoratuñu dara ñu ne ministre bi wax ak ñoom ministre forces armées wax ak ñoom ministre l'intérieur wax ak ñoom ministre finance ñu bàyyi ñu circuler pendant une semaine ndax yoratuñu dara loolu bokk na ci conditions yi yi tax ñu ñu mën a bàyyi grève bi. moom def lu baax ñi mu war a oo woo na leen ba kenn ku nekk jox ko ko kaddu ca loola. mis waa waa gendarmerie jox nañ ko kaddu waa police jox nañ kaddu ci demande bi ñu def pour que ñu alléger doxal yërmande ndax yoratuñu dara luñ naa xay dëgg ruus amatu fi ñoo tamit accepté nañ ko loolu dafay baax pour ñu xam ko. beneen bi mooy bala kaa kenn wax ñun ñu wax ko suñu mbokk yi nekk ci loxol yoon. ñun dañoom am confiance lool sax ci suñu vraiment euh, justice ba tax na question boobu ñun duñu ci duñu ci def ay débat mënuñu cee def débat aussi comme mënuñu cee def débat duñu ci def débat ci suñu côté ñu xam loolu ci presse bi ñu xam loolu kenn mënu xam ñun mënuñu ci def débat li wétoor mooy am nañ confiance ci suñu justice ñu ngi déglu nag justice daf liggéeyam mais yërmal rek moom lañ jiital xuloowu ñoo ñoom xeexu ñoo ñoom exigé wu leen dara dégguñ fi benn déclaration ñu wax ne bu buñ bàyyiwul gars yi duñ bàyyi suñu grève waxuñu ko mosuñu kaa wax te amuñu droit wax te ñu ko ñun daal procès verbal bii ma maanaam préavis moo ñu yitteeloon ca lay nekkoon la ka des nag ci wàllu yoon am nañ confiance suñu réew fa lañ mën a yem xuloowuñ ca xeexuñu ca